mbokk yi ak xarit yi ñuy dellu di ñaan ci réew mi jàmm parce que c'est très important ndaxte jàmm réew mi mooy sabab ñu mën di xëy di wàcc di dem di ñëw dal mën a am sénégalais yi mën a liggéey loolu jàmm moo koy maye kon lépp loo xamante ni bii war na ko mën a indi képp kuy doomu réew war nga mën a jóg yëkkati ay kàddu wax ci fexe ba ñu bañ a yegg fi ñu yeggoon parce que am na lu fi jotoon a xaw loo xamante ne bi kenn ñaanaatut lu mel noonu am et pourtant ñi ngi gisaat ay doxalin yoo xamante ni bi bu continuer mën nañu yóbbuwaat ci lu mel noonu te donc loolu lu ñu war a daw la parce que waruñu gis liy ñëw xam ni lii lii la ñu cay tàbbi loolu bu boobaa day mel ni àndatuñu ak sunum xel président Macky Sall Ousmane Sonko yéen ñaar ci jamono ji jàpp naa ni problème mu Sénégal ñii la kon ñu waxtaan ñu dut ñii waxtaanuñu ngir réew bi ñaar ñii donc ñooy ñi nga xamante ni bi ñoo war a toog waxtaan parce que daluk réew mi ci ñoom ñaar la Ousmane sunu borom am na lu mu ko may président Macky Sall am na lu ko sunu borom jox sénégalais yi jox nañ ko réew mi Ousmane Sonko sénégalais yi bëgg nañu ko ñaar ñii nag dañoo war a teg senegal ci taabal ji bàyyi seeni bëgg-bëgg waxtaan xool ban yoon lañuy jaar ngir jàmm ak dal mën a am ci réew mi te li ñuy demandé du leen te président mën nga ko def mooy lan Ousmane Sonko ak képp ku bëgg a bokk ànd doo dem ci ay élection jàmm ak salaam am ci réew mi sénégalais yëpp gërëm la sant la xam ni kat joxoon nañ la waaye tamit def nga li nga xamante ni moom nga war a def bi dem jotee dem nga teyit ka nga xam ni ñoom ñoo tànnal seen bopp ñoo ko tànnal seen bopp waaye bul nangu mukk ñu naan la jàppal ma tànk bi parce que boo ma téewulut kii mënumaa gañe loolu bu ko nangu